salaamaaleykum mbokk sénégalais yi nuyu naa leen di leen ñaanal jàmm fu waay mën a nekk ngeen partageel ma live bi ma ciy wax ak président Macky Sall xam naa ni dina jot sunu live bi waaye daf koy tànqamlu Macky Sall deug deug dictateur nga deug deug nit ku bon nga nit ku ñak yermande nit ku ñak respecté saw askan nit ku gaddu ak nit ñi bis bu nek ay nit di xey di la moolu bis bu nek ay nit seeni ronqañ di génn te yaa koy génne Macky lii du la jig xam naa ni nag dinga jot lii waaye danga ñuy tànqam li tax ñu ne la dictature nekkul ay sos dafa nekk loo xam ne lu am la nit ki nag li nga doon buñ la ko waxee ak li ngay def ku ko dégg ne ñaaw na wala mag mu ko dégg ne gone gii dafa ñàkk teggin ki ngeen war a yedd kon mooy Macky sàll ngeen war a yedd moom ngeen war a yedd yéen nitu dëgg yi ndax makki sàll moo raw Yaya Jammeh Macky Sall dictateur bu mag a mag a mag a mag la lu ñaaw daf ko xam ba pare diko def Macky Sall jënd nga télé yi jënd nga bépp waxu kay bo xamanteni si waron nañ wax lii xew ci réew mi di ñu ëndil ay xibaar yu wër ci réew mi sa dëgg-dëgg daal liggéey taxu laa jóg réew mi daal taxu laa ndax média yi nga xamante ni ñi ngi fi waxuñu ñu dëgg wanuñu ñu dëgg ay naxaate rek lan ñuy wan ak information yu wérut tele ci poos xew ku ci nekk yor sab tele ci sa poos ngay gis yàqu-yàqu ci réew mi nga koy dénoncé loolee li yan jàngat nga ci waroon a am nit ñi di wax seeni yëg-yëg di wax seeni xalaat di wax yàqu-yàqu yi sa ministre yi di sàcc nit ñi di ko wax sa ministre yi di luujal luubal ay kees nit ñi di ko wax li manqué ci dëkk bi li yàqu ci dëkk bi ñu koy wax bu fekkonte ni nit ku baax nga bu fekkonte ni réew mi moo la tax a jóg yow lan nga waroon def Macky Sall loolu nga jël ci ay leçon ne ah askan wi ma jiite ñoom day am na lu leen metti ñii de alhamdulilah jàppale nañ ma ndax am na ñu sàcckat ñu dénoncé ko quatre-vingt-quatorze milliards yi Tahirou Sarr sàcc xawma ak ñooñu yu mel noonu réseaux sociaux yi ñoo ko wax mais amul benn tele bu ko wax du benn tele boo xam ne toog nañ ñuy def ay débat naan kii sàcc na lii ki sàcc na lële ndax kat yéen kat ay sàcc ngeen jubuloo leen moo tax tele yi ñoom loo leen nekk dañ koy nëpp nëppal la ñuy wax yéen leen koy bindal la ñuy wax dañuy wax rek loo xamante ni si lu leen arrangé waaye nekk lu arrangé askan wi ndax jubu leen juboo leen te seen jubadi nag wane ngeen ko dëggantaan ndax kat message yi ngay jot ci YouTube bi di ko jot ci Facebook bi nekkul ci tele yi lañ koy jot nit ñi am lu leen metti waaye lii dëgg-dëgg mooy wane ni dictateur nga. not nga askan wi not seen làmmiñ not seen lépp tey jii tey amul loo xalaat ne télé ci poos yooyee maanaam danga koy dindi da nga ciy indi ay gàllankoor ba dëkk bi bu nu waxati yàqu-yàqu dëkk bi ba dëkk bi bu nu waxati yi nga xamante ni sii mi ngi fiy xew yow président nga waroon kontaan ci lii bu fekkonte ni nit ko jub nga nga waroon kontaan ci lii ne lii kat alhamdulillah pour may mën a xam askan wi seeni naqar ak seeni metit ma fajal len ko waaye defuloo lool de ngane legi askan bi sax seen làmmiñ sax pour toog di wax li len metti di wax yàqu-yàqu ci rew mi loola dama len koy xagn kon li deug deug day wane ni jubuloo li deug deug day wane ni nak ñun sénégalais yi no ñak fayda ndax li kat li am gambe rek la dégg naa Yaya Jammeh la dan def kenn du wax kenn du wax kenn du ko critique kenn du ko contre moom lu ko neex nit la bëgg dégg Macky Sall sa dëgg-dëgg nit ku bon nga sa dëgg-dëgg saay-saay nga sa dëgg-dëgg kat nga sa dëgg-dëgg li la tax a jóg mooy yàq Sénégal ak tardel Sénégal waaye yërëmoo saw askan yi ngay wax yëpp ay lay la li ngay wax yëpp yëpp naan da ngay tëj réseaux sociaux yi ñu ne lu tax nga koy tëj pour saboter whatsapp bi saboter kii yi lan moo tax muy information yi bu muy jàll muy bu la kenn kërtige muy ngeen mën a sàcc du luubal kenn du yëg bu askan wi bu kenn yeewu réseaux sociaux yi gàcce ngalaama yi fi am yëpp moom la léegi nag nga bëgg a xañ saw askan sa lii mooy dëkk bi na tardé nit ñi nanu nelaw maanaam ngeen continuer seen nax gi ci jaayam doole Macky Sall sa dëgg-dëgg baaxuloo sa dëgg-dëgg nekkuloo nit koo xam ne nit ku baax nga bëgguloo saw askan yërëmuloo saw askan dégluwuloo say askan faalewuloo saw askan tegoo leen fenn yow daal dëgg ñu bëgg delloo daal ci buumu jaam daal yow daal yow yaay buur yow daal yow yaay bummi yow daal lu la neex def yow daal ku la neex tëj yow daal sa waaw rek moom mooy dox lan mooy ndeyu gannaaw da ngay tëj réseaux sociaux yi da ngay indil nit ñi problème ci réseaux sociaux yi kon sunu yaay yi sunu baay sëriñ si Macky Sall mi baaxul de Macky Sall mi jubut de te narut lu jub defut lu jub bañ na ko ba ne ñun askan wi ñun fi mu nii bu nu bu nu waxati na ñoppi day tëj sunu làmmiñ jéem na ko ci ku wax di leeral dëgg mu tëj la. jéem na ko ba ci Ousmane Sonko mii ba ci keneen ak keneen képp koo xam ne wax yaa ngi wax loo xam ne arrangé wul Macky Sall rek te li ngay wax lépp li gone yi di wax yépp li leen a jàppee ci dëgg la leen jàppee alal yanu saaj mbuuxum ya fa nekk réseaux sociaux yi xool leen ni mu amee njariñ Macky Sall bëgguloo saw askan ana ñaata doomu aadama la ñuy dimbali ci faju tabaxaloo leen hôpital tabaxaloo leen dara ci réseaux sociaux yi lañ koy partagé ci whatsapp yeeg nit ñi di dimbali seen askan ñuy dimbalante suñu biir ci réseaux sociaux yi ci la nit ñi dem ba commencé mbay mbay mi Ousmane Sonko di woté ñi ngi koy woté ci réseaux sociaux yi ci réseaux sociaux yi limu défar defar dafa bëri limu défar defar ci askan wi yërem seen bop dafa bëri yokku na xamanté boole na nit ñi nit ñi mëna xamanté ma nekk fi xam ku nekk Amérique ñaata doomu aadama la xam ñu nekk sama nit yu ma xam ci réseaux sociaux yi la jaar té lépp lu baax rek la ñuy dox gone yi doxuñu lenn lu bon lu lenn lu ñàkk fayda réseaux sociaux yi buñ ciy wax nan la réew mi mën a demee kanam lan lan mën a def ba am njiit bu baax lan lan mën a def ba bàyyi suñu réew lan lan mën a def ba France dem yoonam France CFA bii lan lan mën a def ba njiiti saay-saay yi mbooloom saay-saay bu nekk ci réew bi di yàq di saboote tey lii nga ne tey danga koy tëj sa làmmiñu askan pour léegi bu ñu waxati nga ne réseaux sociaux yi nit ñi maanaam da ngay gis kenn toog këram rek manam lu ko neex wax toog këram rek xam nga ni du lay ay tappale kase nga si li ngay wax noonu du benn lay tok këram di wax waxal ak maître El Hadj Diouf muy toog ci télé yi bu doon réseaux sociaux yi ku normal nga yow ay rek nga Macky Sall sa gouvernement bi ñaata nit ñoo toog ci télé yi di saaga ay ndey ci tele ndax réseaux sociaux yi boo xoolee mbirum gone la lu ci ëpp ñaata nit ñoo toog ci tele nekk ci sa gouvernement bi barki démb boo jaay maître El ci télé bii la toog naan waa kër Ousmane Sonko yi saaga leen ndey saaga ndey Ousmane Sonko te ci tele leen ko kii télé yi ñaata waxi bon nga fay dégg yoo xam ni di jox askan wi ay waxi bon duggal ci tele Youssou Ndour ngeen dégg seen waxi ay kii ëmbal na kii def na lii lu ñaaw lu salte lu bon rek la ñuy indi nit ñi yow sa gouvernement bi ñoom ñooy taxaw waxuma la télé sax waaye ensemble ba nga xamante ni sii foofu dafa waroon am loo xam ni pour ay idole ñu fay xeex di saagante ay ndey ci biir ensemble Macky Sall yéen ay bandi ngeen bandi yu jiite askan wi ba pare nag ne da ngeen di not askan wi askan wi bu nu waxati Macky Sall jubuloo wallaahi baaxuloo liñ lay wax nii nag ñun suñ doomul sa déemu réew ñun ci réew mi lañ bokk ci réew mi réew mi da nga kaa moomut ñuy xeex suñu àq ak suñu yelleef bàyyil sa caaxaan yi sa tappale yi monsieur le président billaay waxuñu la dëgg xawma ku la jox conseil bii de waaye conseil saay-saay dëgg la ne gone yi bu kenn yuuxoote bi kenn ci léegi buñ tëjee réseaux sociaux yi information yi ci réseaux sociaux yi lañ koy xamee sacc bi ali Ngouille Ndiaye sa ki sarak bobu nu tuddati euh ki nu tuddati sax sarak bi nga bokal nday ak bay mu don ab sacc yorel ku nek 400000 yorel ku ci nek bor ñi ko xamé ci réseaux sociaux ben télé télé ñu ko wax télé bu ko wax nga tej télé ba wala nga dakk ka ko wax télé yi ku ci tok télé yi nga xamni ne nga ñom ngay bayyi ak ngay ordiné moy da ngay programmer dal yow lu nit ñi di wax lo xamni ni si day yété nga ne duñ ko fi wax lo xamanteni ni si day tax ñi sacc ak di luubal ñu léral leeral nga ne buñ ko ban télé mo fi leeral li fi réseaux sociaux di di leeral sacc yi fi xam yépp ñu ko xamé ci réseaux sociaux du ci télé yi télé yi bu démé ba wax ko réseaux sociaux ñoko wax ba mu ba mu wax ca lu dis gan télé ya ñu jël ci la gëna woyof ñu wax ko ndax xamna ni information bi jall na ba pare mais bu doon lo xamanteni ci si réseaux sociaux jallé wuñ ko télé sax duñ ngang sax li ñu jotta ngang yi télé yi li wax ñu koy si ñun gis nit waxé ko wax bo xamanteni ci wax bu gëna metti télé ba bu ñëwé wax ko ci wax bu oyof amul problème mais Macky Sall fan nga bëgg jëm ak ñun Macky Sall yow lan nga bëgg Macky Sall yow yaay kan yow yaay kan Macky Sall moomoo ñu moomoo ñu Macky Sall da nga ëppal da nga ëppal li nga jël dafa ëpp te lii du la jig li nga jël dafa ëpp not nit ñi not nit ñi sàcc luubal yow nit ñi ñëw di wax lii war a nekk conseil ci président bu baax ci président bu jub këru jàmbur yi nuy toj barki démboo njaay fan lañ ko xamee ci tele bi seen jëfi ñaaw yooyu rek ngeen di nëbb bañ nit ñi xam ko bañ nit ñi dem di caméra bañ ngeen ba télé sax ay caméra ay affaire yooyu ay film ay affaire nit ñi dem filmer këru jambour yi nga toj Macky Sall ñu gis ndaw sa di joy askan wi diko ko gis muy leer ci seen bëñ ñu xam jëf ji ya ko jëf jëf ji yow ya ko digle fekk ay kër faqir ay baado la nga toj ko ci lo tegut fenn ñoña di joy ñu koy tass ci réseaux sociaux seen jëfi ñaaw yoy gën bëgg neub motax nga ne askan wi duñ fi joyé askan wi duñ wax seeni xalaat duñ wax seen yëg duñ xol pour défar seen dëkk li lepp moy lan xeetu pour notel pour noot ñi ci buum ak jaam pour askan wi daal bu nu yëg lu xew pour askan wi bu ñu xam dara pour lu leen neex ngeen def lu leen neex ngeen toogoo fi bëgg toogee nii suñu réew ni bëgg a nekk fii continuer seen caay-caay gii continuer tardeel askan wi continuer ndax askan wi ngeen foog ni lii dina wéy ma ne la réseaux sociaux yi bu la neexee danga kaa moomut bu la nexé loo ci mën def ko waye ndaw ñi xam nañ liñu xam ba pare paré nañ liñ paré ba pare barki alquranu karim makki Sall nit ñi liñ wara def dafa jot ndax dictateur bu maga mag nga bandi nga wëyu nga say say nga nit ñi dox dem palais fekk la fa wàcce la sa wàcc heure wàcc mo jot yow amul ay sax ay 2024 ndax da nga ñoo yap da nga degeur bop da nga ñoo da nga ñuy fonto yow président japp nga nit ñi di tëj ku wax deug nga japp Tik ko ca kasa ba jamono yele jëloon nga asan Diouf tëj ko ca kasa def lula neex nit ñi di wax nit ñi di ki jël kula neex tëj yow dal kula neex tëj ci lo xamni ci wax ji ni wax kaddu ni message bu mu jall tay ji tay nga ne fani waxe sax la bëgg sax legi sax bu ñu waxati mais yow yaay kan makki ndax yow yaaju mom président mo moo dañ la jital ñu wolu la te yow digol li ñun confiance amon ci ñun nga wor ñu yaa fi taxaw wax say wax yu tooy xepp nit ñi gëm la jàpp ne yow boo toogee yow di nga defar réew mais nga toog ba pare nga ne alamik doo wàcc alamik da nga yàq alamik continue bi yàq de bu mel nii lii jamonoy Abdou Diouf amul ci benn président Yaya Jammeh yaa ko gën a bon li nga sañ li nga def ci Afrique li nga def yow sa way wu salte nga am Macky barki alquranu karim way wu a bona a bon a bon sa njiit bii maanaam nekkul valeur nekkul loo xam ne lii xaste la mooy bu ñuy lim ci njiiti gën a bon Yaya Jammeh bi nga nii wàcc na Gàmbi maa ngi nii di la jox exemple rek jox la exemple ci Yaya Jammeh yow yaa gën a yées Yaya Jammeh saw sa waay du fay mag Sall li nga def ci lu ñaaw lii dara jaru ko ci kër àdduna bis da ngay dee ñu suul la gas la nga nekk sa bàmmeel wallaahi nga àtt ko sa digganteeg yàlla lii nguurug àdduna da koo jaru ngaaka nga ngaaka dof këx waxuma la sax nan dépassé àdduna Macky Sall kañ ngay dee yow da ngaa xam parce que u dee kañ la mën nga dee suba mën nga dee ginnaaw suba boo deewee suba dee ginnaaw suba dama ni la Macron mii di sa baay ci gone gu ndaw nga ñàkk fay fayda topp gone gu ndaw di yolos yolos ci kanamam day day dee ku ci nekk sa bàmmeel nga nekk fa yàlla lijjanti la ci li nga def ak sa askan Macky Sall yow président boo xam ne heure bu ñu yeewoo nit ñi ñu ngi saaga sa ndey ci ci Facebook bi heure boo xëyee nit ñi ñu ngi jël ay dessin jël ay mbaam xuux bopp mbaam xuux ñu dessin la yow dessin la biir bu ngand heure boo xëyee ñu ngi def ay croix ci sa kanam la xawla wala quwwata illa billah lii ko fi jar ban valeur nga am ban dignité nga am koo xam ne heure boo xëyee nit ñi muslu la heure boo xëyee ay nit ay million ngi nit seen xol di tàng ndax yow yow kenn cundum yaa leen ko teg du la jik ñaata nit ñoo lay muul nit ñëpp di la móolu kenn bëggu la bañ la ba nga xam ni ku nit da lay gis sa photo sax mel ni bëtitam la gis am na ñoom sa photo ñu gis ko rek mer mais la xawul wala waxta Macky Sall Macky Sall yaa ñàkk valeur yaa ñàkk valeur barki alxuraanu karim mais si li ngay def nii dafa ëpp quoi Macky Sall da nga ëppal Macky Sall da ngaa ëppal ëppal ëppal goo xam ne jiite xeet wu ñàkk fayda woo xam ne mooy loolu billaahi yow lu dul gaa yi dox fekk la pale sifaay la jëlee la fi wallaahi lu dul loolu ku ko deful defuñu dara ndax sa heure wàcc dafa jot ko waa yow li ñuy wax yow waxuma la dara yow lu bon loo def lu ñaaw loo def bul jàppee ni ne lii di ko kaas avant ñuy pare indiwaat nga leneen lu ñaaw tegat chaque jour nit ñi am na lu la wax heure buñ xëyee ay tojaangee njombe rek ngay def bew sa dëgg dëgg dëgg dëgg li gaa yi naan nag baadoo la nga baadoo la xamut yi yàlla mooy loolu Macky Sall baadoola la baadoola baadoo la li doon wax naan danga dundu ci ñàkk màgg ci ñàkk sa nday yorut sa baay yorut baadoo la billaahi dëgg la baadoo la du ci ay du ci ay du ak ñàkk mais baadoo la ngaa ka dof nit ku bon nit ku soxor Macky Sall qualité yu salte nga am Macky Sall baaxuloo vraiment sa ngay def ni ay tappale la sa ngay def ni du dara nit ñi dañu dëgg leen mënatul nax ay naa kii réseaux sociaux yi léegi réseaux sociaux yi léegi mooy loolu ndax gone yi dañ ciy nekk di wax wax yow am ku nekk toog sa kër ak sa biir bu ngande bul fontoo nit ñi Macky li ngay def ñun xam nañ ko danoo nelawut jiwuñu waaye maa tey la ngay jaay nit ñi doole ndax yow yaa am doole waaye yàlla moo la ëpp doole ndax yow la yàlla dénk nguur nga nekk nguur gu saay-saay li ngay def yaa ko gën a tayaatoo yaa ko gën a xam ñuy wax ngay lëre sénégalais yi naan ay réseaux sociaux yi ay wax yu fay yow sa biir waxuma la sax sa biir pale boobu sax di ngeen fay cooki assemblée ay mag yi toog fii di cooki ay mag yi taxaw fii di fecc yooyu ñuy wane moo leen metti ay jël xaalis nii joxe di fecc ci biir assemblée di saaga ay ministre boo xam yéen ay yab sénégalais yab sénégalais yi doon ay wuy yu dëgg dëgg dëgg nekk assemblée kenn wax kenn kenn ko bul wax ba ci biir ensemble sax ku fa nar a wax ba ci député yi sax ku ci nar a wax dëgg sax ñu nangu micro ma ne ko yow waroo waroo wax mais lii wan xeetu yabaate yàpp sénégalais yi dëgg dëgg yàpp mi yéen ay njiitu ay bandi leen jël ay vagabond jiital leen ko ay nit ñëw toog si di seetaan nii ay wëyu mënuñu jiite réew réew ku jub moo koy diite mais ay bandi genn seen bandi dafa feeñ ci lépp ay kenn day taxaw ah, ci biir député yi ñuy wax kenn ki këf micro bi wuroo wax sa wax fii la limite wala kenn di wax avant muy eggale rek nga yuux ko doo ko bàyyi yow doo ko bàyyi sam eggale mee loolu lan la pour naa tëj waxam dafa feeñ ci lépp ci yéen bëggoo leen nit ñi wax ndax tojaange ngeen di def te bëggoo leen nit ñi wax lu jub bëggoo leen nit ñi wax lu baax ci réew mi ba ci biir ensemble ku taxaw ci micro yi di wax ñaata yoon ngeen ko def Ousmane Sonko buy wax rek ngeen këf micro bi ne ko temps bi jeex ku jóg wax bo waxe ben cinq minutes rek kenn du yuur yuuxu ba pour rek nit ñi bul la deg mais yeen digeen ñoo yap seen foy ak seen caaxaan yi xam nañ ko waye mag yi caaxaan di di saw seen kaw lay rogalaan Macky sal dañ ñoo yap gouvernement bi da ñoo yap senegal dañu amul gouvernement motax bu kenn tok naan ay president kenn du ko wax yeen wax yi amuñu gouvernement amuñu president ay nit ñu dof nit ñu kon ay bandi ay wëyu ñoo nekk ci suñu kanam jiite ñu jiite suñuy ndey jiite suñuy baay ay bandi ay vagabond ay nit ñu tekkiwul dara ay mbalit mais réew mi nu mu mën a demee ay mbalit jiite réew ay nit ñoo xam tekkiwuñ dara nit ñoo xam ne jommuñu dara rusuñu dara sàcc fen kàcc jaay doole tooñ mais ay agresseur ngeen mais loolu buñ jiitee réew mi nan la réew mi mën a normale suñ bëggee suñu réew normal dañ fiy jëlee bandi yii ñoom Macky Sall ñii seen gàngu bandi googu ay paa bandi ay màggati bandi yi mu àndal ñu jëlee fi bandi yi teg fi ay nit ñu baax teg leen fi ay gone yu jub ngeen bëggee dëkk bu baax kilifa yi lii dafa jot ngeen wax ci ni ngeen di toogee bàyyi leen agresseurs yi kon ñu agressé seen i dëkk bi da gis ngeen démocrate dafa war a dox kon comme te ñii ay bandi ñoo ñu jiite ay agresseur jiite kon ku agressé ti bàyyi leen ko ñu agressé ku sàcc bàyyi leen ko ñu sàcc ngeen ngeen yamale nit yi mais yéen sàcc ya am sàcc yay sàcc ginaar ngeen di wax ñooñu ngeen yàpp te ñooña la tax ñuy sàcc sax dañ koo yorut sàcc ya fekk ab dàll sàcc ko dem jaay waat ko ñooñu ngeen wax da ngeen yab sàcc yooyu bàyyi leen sàcc yooyu sàcc ko dëkk bi kat mu nekk dëkk boo xam moom lu neex waay def ku nekk nag xam bolo xam golo xam bootee doomam ku nekk def lu la neex bàyyi leen dëkk bi kon ngeen am démocrate nit ñi di def lu leen neex ku bëgg a sàcc sàccal ku bëgg fen fenal ku bëgg a trian triandel ku gis pàkk jàmbur bëgg teg teg sa tànk ñu bàyyi ko mu def ko réew mi kii da ngeen di maanu kon mais ay kumba am ndey kumba amul ndey loolu fa war a jug ay bandi jiite leen ngeen bëgg fi jëlee ay bandi bu leen fi toog kenn naan bandi yi gone yi wuy yeeg gone yi fàqmaan yi wax leen njiiti wuyu yeeg njiiti fàqmaan yi agresseurs yi bon yi ndax sàcc yi ñu ci baree bari li ñuy sàcc amul njariñ ay téléphone la ñuy këf bu nuy sàcc sàcc ñu kër bu ñëw jël kër jàmbur sàcc ko ni mais dañuy këf téléphone portefeuille daw mais sàcc yoo xam ne sàcc ba pare not askan wi ne kenn du ko fi yuuxoo kenn du ko fi wax waaye nañ ànd ak démocrate waaye comme te réew bandi la réew faqmaan la réew bujumaan la réew la bu tasaaroo réew boo xam diini ga jom ga ak góor lépp dem na yéen kiilifa yi ngeen nangu ay saay-saay yu mel nii di leen jiite kenn jógul toog nga ñëw wax ci ñu ànd ñun sénégalais yépp ñun ñëpp doon na wennuk say sëriñ baag taalibe baag meer yaag ndaw yaag ñépp ñu jóg ne lii kat na fi dakk moo xam ay tiset lañuy sol ne Macky Sall doy na wàcceel bis bii tey ñëpp solondoo tiset yooyu wala ngeen bind ko ci ay kat ne Macky Sall stop ñëpp génnandoo ci mbedd yi ñu ànd a jubali pale nag ne ko Macky Sall stop ferme doy na gendarmerie duñ jam kenn dun fi dóor kenn kenn du fi taali grenade ndax seeni yaay seeni baay seeni sëriñ ñëpp fi nekk bu ngeen ko defee wallaahi Macky Sall dina joxe lengeey ndax dafa jot kat yéen a ngi seetaan lu bon nag yéen a ngi seetaan lu bon te ñëpp am nañ ci responsabilité ñëpp ñun ñëpp ñun ñi ñi res seen seen responsabilité wadd wàcc mooy ñun ñii nga xam ne ñi ngi jéem lu ñu mën te suñu kàddu jëmut fenn faale wuñu boo waxee ñu ne gone yi dañoo xamadi ku mel ni président mu koy wax lii président dee leen ku mel ni sàcc ku mel ni agresseur ku mel ni dictateur ku mel ni nit ku bon ku yées ku ñu fen koo xam ni dëgguwut ku soxor ku yabaate ku yab askan wi da ngeen naan ku mel noonu mooy Macky du nitu dara jaru woowee sa Macky Sall kii mbaam sàll lañ koy war a woowee mbaam sàll mbaam sàll laa leen wax woo Macky Sall mbaam sàll turam sax dootuma ci jaarati mbaam sàll laa leen mbaam sàll Macky Sall du nit daf ñoo yàpp te li ngay def li ci gën nit yi mooy dangay def loo xam nit ñi dañ koo xam lii mooy maa tey nit ñi xam ni Macky Sall lii nga si jublu loolu leer na yow réseaux sociaux yi di la jox ay xibaar di la indil xibaar yu wér njiit bu jub njiit bu baax wax dëgg fa yàlla loolu da nga sant yàlla ni alhamdulilah ba ma mënee xam askan wi lan moo leen dal ña nekk géeje waaye ñëw saa waaye ndox ba taana ñu filmer ko. wan la ko ne leen xool leen nga gis gone yi yër seeni mburu di kii nga gis ay élèves yoo xam ne amuñu sax fuñ jàngee ndax ndox bu taa ñu wan la ko yow président nga war a xam ni kon kii ba nga teg foofa ministre ba nga teg euh, non kii ba nga fa teg maire ba nga teg ci dëkk boobu nga xam ne kon maire ba ko liggéeyut ndax tegal nga ko sa bët nga ut maire bu baax nga ne waa dëkk boobu kat waa Guédiawaye kat seen ndox bu taa bi kon naa ci solution naa ut ay kii ñu ŋàcc ko. ñu defaral leen seen kii bi kon xam naa ko ndekete yoo député ndekete yoo kat maanaam kii bi liggéeyut maire bi liggéeyut nga jël fa ut ci ay saafara waaye nga ne loola bu ko kenn wanee sax yow bu kenn wane lii mooy wane ni dëgg dang ñoo yàpp bëgguloo sa askan yërëmoo saw askan ndax mu doon nit ku baax nga lii lu lay dimbali lay doon yi gone yi di li ñuy def nii ñun daf la war a dimbali bu doon liggéey moo la tax jóg mais xam nañ ni liggéey taxul a jóg lu baax taxul a jóg yërëmoo saw askan xooloo situation waa Géejawaay dund googu ñuy jund wala waa Caaray wala waa Malika seen ndox bu taaba mais nga ne loolu sax buñ ko waneeti ndax buñ koy wanee dañuy wane ni liggéeyuma dañuy wane ni yow saay-saay nga loolu rek lay wund wund wut leneen lu dul lii mais lii waroon nga ci am ay solution nga kontaan ci loolu maire yooyu nga dàq nga ne maire booba toogal foofa ma lay fay saay say rek ngay sàcc ngay naxaate di foowee saw askan ñu naan maire ba baaxut maire ba fa toog baaxut loolu ci njiit li la njiit bu baaxut dara du baax maire ba du baax ndax bëggut ku baax sax far waru leen sax ku baax maire bu fiy liggéey ngeen andi ko problème la Barthélémy Dias nga bañ lu tax dafa jub xool leen contraire rek lu ku baax daal ku bëgg a liggéey maanaam kooku ngeen bañ Khalifa Sall xawma ko bu baax mais dégg naa da doon kii maire Dakar di liggéey kii yooyu bëggoo leen ku baax lu baax daal bëggoo leen ko mais maire ba nekk di sàcc. maire ba nekk di toje nit ñi defal leen ko video wan leen ko waa géej waaye ndox mu taa ba Macky Sall ñu ñëw tegal la ko ci réseaux sociaux yi wan la ko nit ñi nag niñ ciy waxee commentaire bi ñu ci def xol bu jeex lañ ciy waxee lu tax defuloo lii Macky Sall lu tax nga xam lii ba pare defuloo ko du tele bu koy wanee du TFM du fenn fuy dem tele boo xam ne ñu ngi dem ci tubaab yi rek nga koy gis di dugg ci problème yi jafe-jafe yi di ko wane bëggoo leen yi wane jafe yéen a ngi liggéey ngeen di wane jëf ngeen kii di nax nit ñi di fen nit mais nit ñi nag dem ba xam lii mu doon dunduk merde nit ñi di ko wax nga ne bu fi kenn waxati dëgg na dëkk bi tàkk na ngeen nax nit ñi na ngeen ñu tayle tubaab Macky Sall xoolaata sa doxalin Macky Sall wallaahi doo nit ku baax wallaahi doo nit ku baax te lii la seetaan nii nag lii dafa ëpp quoi am na loo xam ne nag moom askan wi moom bu fekkente ni nangu ngeen ko ngeen mën a seetaan lii mu continuer gone yu ci wax ngeen ne gone yi danoo xamadi nan bàyyi président ah gone yi nañ toog seen kër gone yi dañoo am jot di wax dem leen liggéey yi ñi ngi liggéey de mais une heure temps benn 30 minutes boo ko jëlee def ko ci Facebook bi rek wax sax nga gis ku leen a demal liggéey xanaa amoo liggéey walla nday ya wax la ko wala keneen wax la ko mais fu nu jëm fu nu jëm fu nu jëm réew mi kañ lay kañ lay fu nu jëm quoi lu ñuy def wan pexe lañ am léegi lii daal lañ bëgg quoi di seetaan lii nit jiite la di la nax di la fen mu wóor na de tigi tigi amul sax warante ni kii day fen kii sàcc la kii lim diggee du ko def ñu nekk ay nit yi ñëw ba pare ñun kenn newul na di jóg ut solution boo waxee yow mi wax ñu ne la da ñàkk teggin boo waxee yow miy wax tey mën nañ xëy tey ne la ràpp ci kasa bi Sénégal yëpp di la seetaan kenn du la jàppale kenn du la jël intermédiaire ne nguur la waxal mais lii lan la mais jam ñaar yoon la buñ ko mëna nek amna yo xamni si amna ñu ko nangu waye amna ño xamni si ñom wax deug yalla ñom jamono yi ma ba ni tak maam buñ fi nekkon duñ dem jamono ji tamit non la deme do tok Macky Sall man xawma kan personnellement man do sama buur billahi bo nekkon njiit bu baax wallahi du ma wax ci yow bo nekkon nit bu dama du tok sax di wax dama du tok sax di la tuddu di tudd sax ay gouvernement ki yoy waye da nga nek njit bu bon bo xam dañ ñoo momut li ma li ngay tek ni da nga koy tek tek ko sama morom tek ko kenen manam force ñu joytu ko ndax danga ñoo momut am droit ak sama ak ak sama yelleef luma ñak ñak fayda mën na taxaw ma ñew wax la deug ne la president say say nga ku bon nga ku yabate nga te buñ jaakarlo won warabil kaaba Macky est-ce que bu ma yow la dóor yalla xamna man buñ jàkkaarloo woon man ak yow Macky Sall est-ce que man duma la dagg compte est-ce que man duma la xoj est-ce que man duma la tulli est-ce que man duma la mbëkk xam naa ni kasolaa laa jëm xam naa ni dóor président li ci nekk ni mu rëyee man suma ma jàkkaaroon yow ma duma la sa biir bu rëy boobu da nga yàpp sénégalais yi da nga yàpp sénégalais yi bu doon jamono yi jamono yu njëkk ya li amoon mooy koo xam ne ku nekk da ngay aag sa secteur ku ci nekk mën a fàq saw yat nit ñew nga saaf sa ginaar bur ne ko doo ko sàqami ndax kat yow ko ay bur kan nga tok yalla xam na ni wallahi bu doon jamono yoy man ma faayat ak yow man man dong man dong ma jël sama jasi wallahi wala zim ma ñëw fekk la pale xex ak yow noq la nga wacc Macky Sall da ñoo yab mag mu rew nga man ngeen balma luma la wax dama ko xeb damay bañ wax wax yo xam day ndax ay saaga nday baxut wax ju ñaaw baaxut pour ay saaga ndey mais su ma lu raw saaga ndey bépp saaga ndey bu la nit saaga man participé naa ci saaga boobu jëlal man saaga naa la saaga boobu façon saaga bu ñaaw boo xam rek lala la Assane Diouf waxoon ak keneen a keneen lu gën a ñaaw loolu suma amoon teg ko sa kaw mag Sall doo nitu dara doo nitu dara xam ngeen ni affaire bu doon ay loxook loxo tànk ak tànk ne jamonoy buur li amoon moo amaat comme buur bi dafay ñëw rek nekk nii saa Sall nga jiitee nii wallaahi wàcc nga wallaahi waxuma la waxuma la nga ak sa secteur nekk buur sa secteur waaye yow da nekk buur yow dañ lay takk jàmb boobaa yow dañ lay seene monete la dugal la ci kaaf comme ñi def muusa xaj ñu def la ko doo nitu dara doo nitu dara mais sa lii du doole ay xoqalaate lii yàlla moo la ko jox nguur soldaari topp sa ginnaaw soldaar yi suba soldaar keneen la ñuy nekk ñi topp sa ginnaaw suba keneen la ñuy nekk nga dee sa digganteeg yàlla nag fu ëpp solo fu ëpp solo président lu ma la xeeb naa ko lu ma la xeeb naa ko ñun ñoo gën a xam li nekk ci jàmm ñun ñoo gën a xam lu nekk ci di wax yow wallahi li ma la wax lii lépp dama koo xeeb xaw ma lan laa la mën a dolli quoi xaw ma lan laa la mën a wax loo xam ni maanaam mooy loolu. ndax wax yi alhamdulillah ndax boko defé nga wacc demoon tay ñew ni ñi ngi titu ñu tiituñu ñu pour del Sénégal mais nga wacc ñu na rap ci kasso bi nit ñi sax xam ni sax ñu sédé di ki bokk na ci yi di ki bokk na ci bañkat de ki bokk na ci ko xam du jaam mom ki mom dafa bañ ki mom nangul jaam gi mom nangul man motax Guy mari Sagna bokk na ci ñima ma fan dig dig bamu xeyé mu benn bis man Sénégal est ce que arrangé na ma est ce que Sénégal arrangé na ma ni mu xëyee benn bis rek dox rek xaw ma courant bi nga yokkal xaw ma xëy bis rek ànd ak ñetti rek daf dem buntu pale gars yi jàpp ko mais loolu sax yëfu góor yàlla la wane na ni bañ na ko wane na ni moom lii nangu ko même bu ko sénégalais nangoo moom tëj nañ ko mais guerrier la guerrier guerrier la moom bañ na wàlla moom def na lu ci mën dem na ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk bu ñëpp meloon ni Guy Marius saaña bu ñëpp tolloon foofu te ndaw ñi nag falan tolloo de instant bii nag a bëri ay Guy Marius Sagna attention Macky am na nit ñoo xam ne ni nekkee bañ bañkat sax du ndànk mais bu nu yeewoo ba xam lu xew gis nga bu nu jógee doo dooy te fi mu toll nii moo commencé ndaw ñi dépassé na ñi yëpp sa réseaux sociaux yi nga naan réseaux sociaux bu dee yaakaar moom ma ne yéy ko lekk ko Macky la nga wan na ko nga foog ni lii dina la ci génn nga foog ni lii dina tax ndaw ñi arrêté yow balaa ngay boo naan ay réseaux sociaux balaa ngaa tëj wala dara yow réseaux sociaux yi sax moo la arrangé ndax nit ñi léeg dañuy mer sax rëccal. di wax yenn wax yi mais bu dee waxu suuf waxu petoo petoo petoo booboo gën a bon dañuy xëy rek dal sa kaw te loolu dana ami nag booboo nag nga def attention bu baax a baax ndax la nga waxoon ci benn aal yi xaw ma mooy puus puus ba ka yor puus puus ba mer ba taal boppam mer ba taal boppam dem taal boppam loolu tax askan wi mer jàppal ni loolu dina la dal ndax askan wi fi mu toll nii maanaam dund gu dee gën dund askan wi fi mu toll nii dund ak dee benn la si ñoom ndax sonn. ay nit ñu mer bu mu jaam sonal leen maanaam ñu jàppal ni nag yow kee benn ni dong la waaye ay niti nit yaa ngi leen rey ay niti nit ñi ngi jooy ndax yow guddeeg bëccëg ay niti nit kar ndax yow ñu dee ndax naqaru xol moo tax li ngay def nii moo tax nit bu naree daanu day dangay repp ko xamni si da sa way jam narul sa kaw da ngay rep mak sal da nga rep da nga rep li nga japp ni ya ngi nax sa bop japp ni yow da nga bëgg a lo Sénégalais da ngay nax sa bop laa la wax ngi nax sa bop tit meñ tej nit ñi ci kasso ba bu kenn wax deug yaay bum yaay bumi lola neex def lola neex wax. bew dégluwuloo kenn sa yoon nekkul ci askan wi amuloo yërmande ci askan wi wal Sall yi dangaa ndax sa bopp ku lay conseil xamut xaw ma dan lay conseil xaw ma say xalaat bopp la waaye sa xalaat yi looy gën a def muy gën a nekk yëfi dof nga xam loolu instant yii Macky moom ku repp daal ku repp gis nga nit ku repp maanaam yow moo la dal yëfu ku repp ngay def fi mu ne moo waral nga naan da ngay jàpp Ousmane Sonko moo waral nga bëgg kii te gis nga lancement bi ba nga naree lu bon nara kii ba naan ay force ak ay yeneen yeneen ci la nit ci la ndaw ñu jóg ngay gën a defati lu bon nit ñi di gën a jóg yow sa askan seen xol jeex tàkk doo xool lu seral seen xol mais chaque jour ngay gën a xool lu gën a métti seen xol nga koy def nga jàpp ni loolu yow benn li tax nit ñu jóg ba commencé kii tey la ndaw ñu gën a am doole yow jërëjëf Macky jërëjëf Macky ndax yow sa dunduk cuune gii moo tax nit ñi mën a gore ci buum ak jàmm ndax bu fekkonte da ngaa ñëw di ñu nax di matt di ëf ñun bu boobaa sax duñ comprendre danaa ak ah, njiit bi baax na am na dugg am na mboq mais dangaa dem merloo nit ñi ba nit ñi xam ne sax diggantaan sax ñun coow lii sax nekkatul Macky Sall waaye France ci boppam moo ñu ko ci système bi sa boppam moo ñu ko teg nit ñi di yeete di wax ci réseaux sociaux yi xel yi di génn xam di génn ba nit ñëpp comprendre ne xifeet ñëpp yewoondoo fii lu fi nit xalaatul sax nit xalaat na ko ba teg léeg nga def sa live wax la nga wax nga déglu keneen te yàlla xam ne di dégguloo live am xamante woon seen wax ja doon benn kiif kiif kon montre yu baax yi ñoo bokk heure nit ñi dañoo am yëg-yëg xàmme ràññee seen naxa yi loolu bu njëkk la woon Macky dangaa dangaa amul sens tamit ndax fi nga ñëwee la amoo sens lii bu doon ay jamonoy Abdou juuf jamono yooyu maanaam yii dina jàll ndax jamono yooyu nit ñi yeewul woon kon nii àdduna bi demeewul woon nii mais dangaa ñëw yow fekk fi adduna bi de xifeet nit ñi ku ci nekk di xeex naan man dama bëgg a gore nit ñi di xeex xeex yoo xam ne dépassé na fi nga xalaatee sénégalais Macky fi nga xalaatee sénégalais sénégalais dépassé nan la yow yow président moo tax bu fekkee dangaa jàpp ne li fi amoon ay nit ñuy nelaw nit ñu gëmmeentu nit ñu sàngu ñoo fi nekk bu doon jamono yooyu mën ngay ni def yi mu jàll mais xool leen li ngeen fi teg dil boo teg nit ñi pare nan ba teg dil boo leen pare loo leen teg ba pare ngeen xalaat ko rek nit ñi xoolal ñoom protéger nañ loolu ne lii sax dafay am fat looleen leen naragul sax nit ñi sax dañ naan kii sañ lii Macky Sall lii lay def combat bi lii nii lii Macky nii la koy doxalee moo tax sa yii sa affaire yi affaire bébé la président nekkul askan wi nga mën a ti nax askan wi ne xifeet nag teel si ñoom askan wi xam fu ñuy taxawee ni xifeet yëg-yëg yi doon benn li nekk ci xol yi doon benn nit ñi am jom am fulla ni lii fiy jóg yow nga bëgg a ñëw ni danga koy arrêté looy gën a def ci lu bon jàppal ni sa daanu gën a ñaaw Macky wàccal senegale yi nañu ànd ñun ñëpp lii amul ay xaar 2024 amul xaar dara makki sàll mii lan moo fi jot mooy def ñoo yàpp Macky Sall deseeluñ dara ci lu bon ba pare di continuer yu bonam ñi askan wi ci boppam ñëpp a war a génn pour fay coow li benn yoon mu fay ndax lii kat dafa ëpp quoi Macky li ñu ko jox dafa ëpp ñëpp ñëw sol seeni tiset am luñ ci bind wala ñu jël carton bind ci ay kii ne Macky Sall doy na Macky Sall demal ñu génn ci mbedd bi di dox rek di wax lii rek xeex bu ama am solo la boo xamante ni si armée bi duñu kii ñëpp dem taxaw buntu pale wax ko Ousmane Sonko mi nga xam ne génneel nañu ay solution wax ñu lu leer ñu teg ko fi armée bi ànd ak moom ñu teg ko fi ndax ñu xam ne askan wi yeewu nañ askan bi dépassé na ay naxaateeg yooyu ko bu fi toogee li ñu wax ñu gis alhamdulilah mu defee ko noonu baax na bu ko defut ñu sëqati ko sànni ko fële xool ku ñu doy ñu teg ko dafa jot kat ñun ñëpp ñu ànd defarandoo suñu réew ñu bàyyi naxante dafa jot de billaahi Sonko war na leen solution bind livre solution amul werante ci moom mod du wax la mais Ousmane Sonko du koy wore li ko tax a jóg mooy buumu ak jaam système bi ñu réglé ko bu ñu defee noonu Sonko toog fi ñuy doom ñëw continue ñu mën a teg dëkk bi ci tabaxin bu baax mais ngeen nangu tey ay agresseur ay bandi ay sàcc ay wëyu jiite leen jiite sëriñ si jiite ñëpp yéen ngeen bëgg seetaan lii wax dëgg yàlla ñun ñoo bëgg lu baax nag balaa kenn jóg rek yow yow sa kër la laal wala yow sa bopp la laal wala sa njaboot nit ñi fajuwul ñun li ñu am ci alal mën nañ ci faju mën nañu amee hôpital mën nañ am liggéey Sénégal yomb na réglé mais ay bandi ñooñu jiite ñi ñu jiite bëgguñu réew mu leer naññi di fooyee réew mi mais jot na nag askan wi ñun ñëpp nag ñu ànd loo xam ne jarul sax ay taali grenade loo xam ne jarul sax ay masque jërul dara mooy askan wi yëpp nu ànd jóg sëriñ si bokk ci waa réew mi yëpp jóg ndax lii ci ñëpp la metti ci ñu mettiwul ci ñu néew la wala ci ñu mettiwul saay-saay yàlla mais léegi nag askan yëpp bu ñu àndee génn yoon seen kii bind ci ne Macky Sall doy na ñu génn wallahi armée bi seen yaram dana daw dem ba buntu palé askan wi yépp génnandoo benn dimanche ne Macky Sall li doyna ferme doyna na ndax bu liggéeyul bëggul liggéey mu wané na carrément Macky Sall dafa wané bu doon ko xamné da bu doon nguur gu am yaakaar wala nguur go xamné day liggéey di juum mënut fekk xam xam mo fa kiwut ñu nekk nan bàyyi ba élection mais nguur go xamné ma tay ko xamné mom du ay président du ay affaire président mais affaire ma tay la quoi xam ngeen lool la xam nga ku toog ne day yaq Macky Sall la yàq moo ko tax a jóg lu bon moo ko tax a jóg mais lii dafa leer naa ñu quoi bu doon koo xam ni dañ ko jox réew mi réew min ko jox moom xam-xamam moo tax réew mi demee nii mooy dafa juum ci ni muy liggéey xamul nu muy organiser xamul dara kooku noonu danu war a bàyyi ba élection jot ñu wàcce ko. mais koo xamante si moom maa tey moom jiitewul pour ay jiite damay jiite pour réew mi mais damay jiite pour xoqatal man buur laa maa moom dëkk bi ku ma neex tëj lu ma neex def damay yàq tubaab laa fi nekkal yàq tax leen jóg carrément fen kàcc naxaate mu leer naññ naññ mais kooku amatul amatul lu ñuy xaar lan la ñuy xaar ci Macky Sall la ñuy xaar moom liggéeyul bëggul liggéey bëggul Sénégal mais ay nit jiite la ñu yor suñu réew ñu jox la suñu àll jox la suñu lépp nga jiite ñu te yow dëgguwuloo bëgg loolu baax bëgg loolu kii askan wi toog naan ay nan mu ñëkk nan kii mais jéem leen pexe askan bu doon koy juum Macky Sall dafa nekkul juum juum ak maa tay dafa am juum ak def loo xam ne sa tayeefu bakkan ne man yàq moo ma tax a jóg yàq Sénégal mel ni golo ñu ñëpp di àndee ko seetaan lii du yoon Macky Sall nañ ko fi jëlee nañ ko fi jëlee amul ay wax amul ay kii affaire yi sëriñ seeg ñëpp xam na ak taalibe yeeg ñun ñëpp xam nan nu demee nday yeeg bàyyi mais dafa leer naññi ne Macky Sall liggéeyut Macky Sall bëggul Sénégal Macky Sall parewul pour Sénégal jëm kanam moom yàq moo ko tax a jóg ak tooñ ak jaay doole mais loolu bu amee nag mu leer naññi ci askan wi loolu lan la ñuy xaarate ay 2024 lan la ñuy xaarate ay kii lan moo jot mooy sénégalais yëpp ànd nday yi bàyyi ñëpp ànd ngeen ut ay carte ngeen gis ni kam Macky Sall ka mi ngi jàpp seen doom yi di tëj jàpp na waa kër Ousmane soo koy tëj Macky Sall di def lu ko neex maa tey ci façon jiite bi askan wi yéen a ñàkk fayda askan wi wax dëgg yàlla lu leen dal tamit baax na ci yéen li fi jot nag mooy nag affaire bi du ay xeexu Sonko du xeexu kenn xeexu ñëpp la na ñëpp ñëw ànd ñu bind suñuy bind ñu bind suñu carte bind ci ut carton bind ci ne Macky Sall doy na Macky Sall wàccal bëggatul la fii la Sénégal toll fii la Sénégal toll fii la lii moo jot ci Macky Sall Macky Sall wàccal si jàmm ak salaam bëggatul la Macky Sall demal ngeen bind ko seen kii wala ngeen dox di ko wax yéen ñëpp ñu àndandoo sol yére yi rafet doxandoo ànd dem pale Sénégalais yëpp wàcc mobiliser wàccandoo ci terrain bi ne ko Macky Sall doy na Macky Sall doy na Macky Sall doy na Macky Sall wàccal Macky Sall demal ndax kat fi ñu nii kat lii moom mënatuñ ko continuer yàq moo la tax a jóg demal ñu xool koo xam ne ku nu doy la. mu toog ci réew mi lii dafa jot ci Macky Sall amul ay taal grenade amul taal yi lenn demoo leen pour xeex demoo leen pour lenn mais jiite na leen ci jiite baadoola la jiite leen ci tooñ jiite leen ci njaay doole mais am ngeen droit ngeen dem ci sérieusement ci loo xam ne amul yuuxu amul taalipana amul dara yéen ñëpp fii métti ci yéen lay métti ngeen bind seen carte boole kook di ko wax ci mbedd yi Macky Sall demal Macky Sall wàccal ñun doyal nan la bul fi fanaan wàccal ñëpp ànd dem di wax kàddu gii dem ba pale benn gendarmerie du leen dóor benn gendarmerie du leen dóor yéen lacrymogène kenn du leen indi benn pam ngeen dem taxaw bunt pale wax ko léegi nag armée bi tamit ngeen wax ak ñoom Macky Sall na wàcc ñun doyal nañ bëggatuñ armée bi yéen yéen lay suñu yaakaar ñun dañ leen fi teg pour suñu sécurité suñu réew mi amatuñ sécurité amatuñ jàmm ñi ngi toroxal suñu askan ñi ngi rey suñu askan nit ñi xiif nañ mar nañ ñi ngi tiital askan wi armée bi dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen wàcce fi Macky Sall tey tey tey tey tey tey tey tey tey nañ ko def dimanche bii di ñëw bu ñu ko defoon Sénégal réglé Macky sàll na dem demal demal France demal kii bu ngeen ko mënee may lim sàcc sax ngeen may ko ko sa waaye mu dem mu dem ñu mën a am jàmm ngeen bàyyi ñi sàcc sax ngeen baal leen sax ay bañ a jàpp sax ñi sàcc ne leen dem leen léegi li ngeen sàcc ak li ngeen kii yëpp jël leen ko yàlla baax na yàlla yaa na ñu jéem a xool nu defaree suñu réew li ngeen jot a sàcc ak li tubaab jot a mag Macky Sall yow ak sa gouvernement ak ku mënta doon li ngeen fi luubal comme te loolu moo tax ngeen bëgg ray askan wi ngeen dem sax ak li ngeen sàcc sax ngeen jël yàlla baax na ay ala riba ngeen dem ñu bàyyi leen si jàmm ngeen dem si jàmm moo gën taal dëkk bi sax quoi bañ a sax lijjanti sa seen kii ku toog mu signé ak ñun ne da leen di baal ngeen dem seen yoon ko ndax li tax ngeen di indi problème yëpp mooy ñàkk a di mooy jubadi mooy tëj yi ngeen xalaat li nar a teg seen kaw ñu bàyyi leen ngeen dem ak France lépp ñu commencé waat à zéro. li ñu am nii li ñu yàlla dégg ci teer bi lu nekk lañ ci mën a am mën nañ ci am lu nekk nga dem ci jàmm ak salaam ne la doy na stop xalaatuñ kii jarul sax ay sax ngay indi sax ñu lay xool sax di la audit di leen lijjanti mais ngeen dem ci jàmm ak salaam ngeen dem ca tubaab ya nga xam ñooy seen mbokk ngeen dem dund fa léegi ñun Sénégal ñun ñu commencé waat zéro amul problème lijjanti suñu réew ci zéro pour ñu mën a dund jàmm ko ndax liñ am mën nañ ci dund suñuy sët mën nañ ci dund te bu liggéeyee suñ jàmm am suñ teey am suñ salaam suñ dëkk di économie bi dina dem quoi dina avancé ci loo xam dañ leen koy wax te du ay naxe pour ngeen dem rek après ñu jàpp leen ci loolu ngeen dem ci jàmm ak salaam Macky Sall Macky Sall wallaahi doyal nañ ci yow. doyal nañ ci yow sëkk sëkk doyal nañ ci système bi sëkk sëkk ngeen dem ay yéen ak France. la France jot a sàcc may nañ leen ko la ngeen jot a sàcc yéen gouvernement may nañ leen ko pour rek jàmm rek pour rek ñu am mën a am jàmm mën a commencer à zéro am nañ suuf su nangu am nañ air am nañ lépp ñun li am nii buñ ci créé dañuy dem quoi te dañuy am jàmm te dañuy avancer incha allah jar na ko kat sonn nañ sonn nañ maire yi génn leen bàyyi génn leen ñëpp génn ñu ànd doxandoo lii xalaat la dimanche bii di ñëw. ñun ñëpp ñu ànd ñun Sénégal yëpp bind Macky Sall doy na Macky Sall doy na di ko wax bind ko ci seen fooy ngeen dem ba pare ngeen wax armee bi bu ñu génnee ngeen ne leen généraux yi armée bi yéen ñëpp ñu ngi leen di sàkk Macky Sall na dem Ousmane Sonko moo fi nekk keneen nekku fi ci opposition kuréel Ousmane Sonko ñëpp tëj na leen loxoom set na ñu jël Sonko ñu teg ko ci jàmm ak ci salaam ñu commencé suñu réew ci zéro bu boobaa tubaab bi maanaam amul sax problème tubaab bi mënaluñu dara. nekkul ay élection nekkul ay affaire sànni xeer nekkul dara mu toog si jàmm ñun ñoo moom suñu réew léegi nag après lañ jot a sàcc tubaab bi moomatuñu ñu xool ni ñuy organiser suñu réew bu boobaa tubaab bi pexem bi sax day def bu boobaa tubaab pexem bi muy def ci élection yi bëgg a sàcc bëgg a kii mais bu ñu demoon ba falee nii Sonko nii dem gunge ko ba pale Macky Sall demal Macky Sall demal Macky Sall demal waa askan wi yëpp génn Sénégalais yëpp génn Macky demal Macky doy na Macky doy na ndax benn dong la problème bi benn dong la. moom moo nekk ca bopp léegi Macky bu demee léegi après ministère yi ki nekk ci bopp bi kenn du toog di sàcc ci réew mi après ñu xool ñu organiser réew mi ci jàmm ak salaam ñu xool na luy organiser Sénégal ci jàmm ak ci salaam ñoom bu ñu demee léegi ñun ñu xool ñuy organiser suñu dëkk ndax ki fa falu ñun ñoo ko yóbbu gunge ko ba pale ñu fal ko ci jàmm ak ci salaam mu toog léegi mu doxal léegi France lan la fi mën a am intermédiaire wala di kii wala dara léegi nag après li fi des nag mooy jël dossier France teg. sen total ak sen ki ak sen lele li baxut ñu dindi li bax ñu bay fi la li yomb na solution bu yomb la def leen li Sénégalais leen ñu ngir yàlla ndax ñun xamuñu fu ñuy jaar makki looy def sinon seen doom yi ñoo dee rek sinon seen doom yi ñoo rek ay kii te yi pare pour dee problème bi mais lii bu ngeen defee luy wàññi coow la boy du du du boy ngi gendarmerie yi ndax sañ nan waa askan yëpp seen nday bokku ci seen baay bokk ci seen jarbaat bokku ci seen i bokk bokku ci ñëpp àndandoo génn ñu leen di roosey bal te ci loo xam ne ci jàmm ak ci ñu wax suñu bopp carrément nag wax carrément li fi nekk bokk ñëw jébbal suñu bopp benn yoon ñun sénégalais yëpp dimanche bii di ñëw ñun ñëpp ñu ànd génn génn dem jubale ci Macky Sall mais ne ko Macky doy na Macky Sall doy na. wax ak gendarmerie wax ak ñëpp ne leen Macky Sall mi na fi jóg dem ñun doyal na ñun askan wi ñu ngi nii carte yi ay carte ay voteeg lépp ay sàcc kese la ñu fi indil leneen ak leneen indil ñu fi ay problème ay nit dee mais mu dem ci jàmm ak ci salaam bu ko neexee na jël vol dem France ñu gunge ko ñun ba ba ba aéroport gunge mbooloom sàcc ba aéroport yéen sàcc yi yéen bëñi metti yi yéen nit ñu bon yi ñun soxlawul leen léegi ñu jël leen sax jébbal leen ba benn yoon ngeen ci seen ginnaaw bandang bu senegalee bañ leen topp ci dara ñu signé koog yéen ne duñ leen topp ci dara baal nañ leen ngeen dem mais li ndax bakkan moo foor li fi li ñu fiy nar a ñàkk ak li ñu fiy yàq mu bëri Macky Macky ñi la mere ñoo bëri <sighs> salaamaaleykum